bismillah jàngoro jànga yaatu de mar di taali ma ngay màgg termine yéene kaa ne en xeex bi nga xam ne nag maanaam ñu ngi xeex nag jàngoroy covid 19 joojee waaw lu jege ñetti junni ci ay doomu aadama de fat nañ leen daal dinañ leen confiné la ilaha illallah dama ne gis nga wàllum confinement googee waaw moom la ñuy waxtaane aram top seen mi nga xam ne mooy directrice de l'action sociale day waaw nee na doomu aadama nga xam ne kon fat nañ leen de toll nañ ci ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci ay doomu aadama deux yees waaw ñoo daal di am de Sénégal nag fi mu nekk ni le laal na kon ñetti téeméer ci ay kaax allahu bar allahu akbar district yu ndakaaru njaay gile Dakar Nord ak yëmbal waaw dama ne la ku ci nekk am nga juróom benn yu bees ni ki démb la Goudiri ak Louga Mbao ak Ziguinchor waaw dama ne la ku ci nekk dee am nga kaax waaw waaw lu jëm nag ci waaw kaaw communautaire googee ah jàppal ni nag am na ci daanu Ziguinchor gee waaye lu tolloo juróom benn fukki ci ay doomu aadama yoo xam ne dee ñu ngi leen di surveiller comme di leen sur le yoo xam ne amaguñ jàngoro jaax ma laal bant gaaw laalal bant kay dama ne la ñoo ñoo ko amagul muy Kaolack gaay ak Kaffrine Matam ak Ziguinchor ak Kédougou laa la wax 24 heures yéen a kaay ne yëmbal day ah doomu jàngoro jokkoon franku la ina fa dee ak juróom-bennam yu bees laa ilaha illallah boo ko dajalee léegi nag yëmbal am na lu tolloo fukk ak ñett ci ay doomu aadama yoo xam ne kon dañoo corona laa ilaha illallah Le Soleil yéen a kaay ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay kaate moom la ñu amagum doomu jàngoro joojee waaw ma ngay tasaaroo nag ci ay quartier yu bari ci Ndakaaru Njaay Jóob waaye yow jàngoroy corona ji bi docteur di jaxawul ci réew waaw nee na ay semaine alhamdulilahi rabbil alamin jàngoro jeex cay wàllum jàngoro joo ak wàllum koom-koom gi direct news de waaye patronat bi leen lan moo tax nag ba dugaluñ seen loxo seen xaalis bi ndimbal li nga xam ne kon njiitu réew mi koy woote Moustapha Kane syndicat la de patronat ba waaw nee balaa nga naam ne fax yow entreprise yi buñ defulee benn fu liggéey mënul am nan la fa production fay nekkul may de bor la bor dañ koy fay de enquête yéene kaay ne tey artistes coowal corona gi lée waaw dara doxul Touba maal Mamadou Koné mi nga xam ne mooy manager Wally Seck de waaw nee na yi nga xam ne kon maanaam dañu koo annulé billet avion yi nga xam ne nag maanaam fayoon nañ ko opéré ak par semaine yi nga xam ne moom la Wally Seck doon ah ñàkk nañu lu tolloog ñetti téeméer ci ay millions la allahu akbar Matar Dio manager Pape Diouf waaw leen nag bor bi nga xam ne kon maanaam moom la waroon a dimbalee africain yi dee alaaji Malick Gakou mer na dee lool njiital grand parti ne waaw ci lànk gi nga xam ne kon waa G20 daal dinañ koy lànk ni lée ne duñu niinal kon bor bi nga xam ne moom la africain yi amee alaaji Malick Gakou ne léegi ne kon leer na lii daal moom mooy wane ne gis nga punk li nga xam ne nag maanaam ñoo yor doole ci wàllum kon mën a am nag jugaat gu bees un nouveau départ waaw alaaji a doonee Sénégal ñu ko tijjee nee na Emmanuel Macron waaw daal dinay tuubal jéggalu na africain yi de ci vaccin bi nga xam ne kon dañ ne woon nañ ko indi daal pour essayer ku ci africain yi lée professeur Seydi ci libération yéeni kaay nee na solution bi gën a simple de na ñëpp sol ay masque rek masque na ko ñëpp takkandoo rek léegi ko yéene ne en tout cas mi ngi compliqué ci Ndakaaru njaay jël Joob ak Louga gële zone rouge waaw bog soob li ne Dakar dong de am na téeméer ak juróom a sut saane en tout cas parti wu bi de waaw moom dong moo fii parti politique boo xam ne dafa yëkkati xaalis te ci alxamis tay ji la koy jox ministre finance fas yéene koo dimbale askanug Sénégal gi lée ci wàllum corona ji yéene kaa gi ne beneen coronavirus sangi ni la te ah, ay mbokki punkal yoo xam ne tey ci aéroport du Sénégal nag lañ leen wutal liggéey eh way Samba waaw jëkkëru neen ne Fatmata Tall ministre Cheikh Sadibou a ah, catégorie A bu rëy Pape Gueye la négocier la ñu amoon te laas koogee ca aéroport encaissé ay millions yu bari ginnaaw ga la leen Pape Mayel Diop di laat directeur de waaw nee na kuñ fa ci yoon lañ ko jaarale waaye est ceeb jaar na ci yoon ubil le quotidien yéene kaay nañu programme séddale wàllum dund googee waaw bayeer de la ñu mooy nañ ko def xaalis transfert d'argent moo gën lekk gi moo taxit xoolal ma tey jile lu tolloo téeméeri junni ak ñeent ak juróom cent quarante cinq lool Moustapha Tall ci bëgg soppi waaw nee ne scandale ci réew mi yëpp nag laa a wax waa ji ñu naan moo gañe kon ceeb bi de kenn xameewu ko indi ceeb ci réew mi naar a de Rayane Hassam kenn xameewu ko indi la wax laast yori nuk seedal ak dundu googe waaw man sol fay de ka suspect de exclusive yéene kay ne waaw jàngoro business ba feeñ na virus du business Mansour Faye Diop si de lañ ko tudd Youssou Ndour tam tudd lañ ko ci marché hydroalcoolique waaw waaye Youssou Ndour na porté plainte ñaw njabootu Youssou Ndour gi ci wàllum communication ci tribune yéene waaw nee nañ au contraire ñuy waxal Youssou nekkul dëgg benn ñaar Youssou Ndour kay moo jël xaalisam def ta benn ñaar Ndour Waly Mbergane yemu ci parce que groupe de presse ci boppam kon la jël dugal ko ci effort bii xeex jàngoroy corona waa kër Youssou Ndour ci source année c'est pas vrai ça Youssou Ndour gañ du dëgg lay si ko yéene ne liy dëgg kay démb ca conseil des ministres témoins yéene kaa ne leer gi nga xam ne nag maanaam am na ci yorin gilee xaalis bi ci corona gi waaw société civile ba dee ma ngay dànkaafu Macky Sall ñoom wàll jooja Njaay ak ñoom moo Njaay Cissé la ñu bëgg daal moo ñuy taxawal benn comité de pilotage wàllum xaalis sénégalais moom la ñu wax mooy ngir yàlla bu ko politiser évidence yéene kaa ne am ci ceeb bi dee kóolute di confiance yi askan wi amoon ci président Macky Sall dee wàññeeku na critique yéene kaa ne en tout cas président Macky Sall dee waaw ci séddale bi léeg ndimbal li nee na na gaaw président nee na na gaaw <laughs> <laughs> waaye nag mu le président ak lu séddale bi gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw na leer na leer pétrole bi tamit na leer parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere boo paree mën a la